mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaara di leen ndokkeel eh, di leen baalu àq di baalu àq jëpp rawatina weeru saxbaan bi nga xam ne dugg nañ ci di weeru barkeel ñu leen ciy ndokkeel bu baax a baax ñaan suñu borom mu defal ñu ci tawféex di ndokkeel jullit yëpp di ci jiital Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko ñu am mbégte bu baax ñëwaat ci seen seen bi di MKTV di seenu muqaddimatul xidma bi nga xam ne moo yor jumaay Touba ak tamit seen bi nga xam ne mooy GMTTV muy grande mosquée de Touba ngir euh, émission bi nga xam ne dinañ leen koy amal ci weer wu nekk ñaari yoon muy émission gàggantiku bi nga xam ne miin ngeen ko ci seen yi ñuy indi ay laaj laaji diine yoo xam ne dañ ciy gàggantiku di ci ànd ak ay boroomi xam-xam ñu gën cee ràññee nag Serigne Mbacke Abdourahmane ñu ñëw fii ci Daaru Salaam ndaam ngir ñëw jébbalaat ko tamit euh, laaj yi nga xam ne bokk jullit yi ak bokk taalibe yi yónnee nañ ko fi ngir di ci fas yéene gàggantiku ci seen diine euh, ngir ñu laabiri leen ci luy jagal seen àddina ak luy jagal seen ëllëg ñu ngi leen di sant ci ñaan yi ak kàddu yu rafet yi nga xam ne ñu ngi koy yónnee di ko yóbbante ci sëriñ bi di sant yi Sëriñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne mooy réaliser émission bi ak sëriñ bàcc ba mi nga xam ne mooy sunu caméraman kon sëñ bi ñu jox la nga nuyoo ñu jublu ci waxtaan wi aouzu billahi min asheytaani arrajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ Abdul Ahad maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu mboole mbokk yi nga xam ne ñi ngi teewlu ëtt bi di leen ziar di leen ndokkeel tam lay ko ci sunu kilifa bu mag gi sëñ Mouhamadul Muntaqa waaye di siyaare mboolem waa daairatu muqaddamatul xidma ci taxawaay yi ci njiitul al imam sëñ Afi Ahmad Bousso ñu ngi siyaare mbokk yi topp jotaay bépp di leen ñaanal jàmm àdduna ak àllaaxira di sàkku ñaanal ñu ko jërëjëf sëriñ bi euh, ñu ngi nuyu mbokk yëpp rek euh, bari na yóbbante yu ñëw waaye ñoom ñëpp it ñu ngi leen di delloo seen nuyoo ak seen seen siyaar ak seen i ñaan sëriñ bi kon suñu laaj bu njëkk mbokk mi dafay laaj ne dafa nekk uh, bitim réew maanaam di déposé li ñuy wax asile loolu nag boo demee Amérique ak Europe bëri na fa lool maanaam dañuy génn fii réew mi dem tukki ngir ñu jox leen kayit yu ñuy wax kayitu asile dañ leen di wax ñu wax seen histoire histoire bi nag dañ ciy nettali créé yoo xam ne maanaam lu ci bari du doon dëgg wane ne dañ ma doon bundaxataal sama réew wala ñu ne uh, dañ ma doon dañ ma dañ ma doon tuumaal uh, yëfi ñaari tur yi ma daw ak yu demee dañuy créé daal yoo xam ne tubaab yi dañuy jàpp na ñii dañ leen xatal ci seen réew bañ ñëw ngir ñu jox leen këyit mu ne ndax këyit woowu bu fekkee sos na loolu bañ jox ko ko lam cay liggéey day dagan ci moom mu jariñoo ko wala ndax day aram ci waaw kay jërëjëf sëriñ Abdoul Ahad ñoo wax ci këyit bi dañuy wax ci jëf yi hmm. ab jaadu ci moom muy wax lu amut ngir bëgg lu muy wut hmm. làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tere waxoon na ne ngeen ragal yàlla na ngeen bàyyi xel yàlla te rafetal bu ngeen di sàkku ittaqullaha wa ajmilu fi talab mooy lépp lay wut bàyyi ci yàlla te wut ko wutin wu rafet ndax la ci sa wërsëg faaw nga jot maanaam xadis loolu la wax nee na bakkan du faatu te wërsëgam jeexut takk kon ragal leen yàlla te rafetal na ngeen di wute rafetul nag bëgg am tax ngay wax lu amut wax lu amut sëriñ bi nee na bokk na ci bàkkaar yi mag yi nga xam ne day yëngal aras kon wax sos ay wax rawatina muy wax ju ñaaw nga askan ki sa bopp loolu aw ñaaw téef la loo xam ne looy wut rek jëru jëru ko ci yow ndax ba ba bàyyi xel ne li ngay wut moom la cee sa wërsëg doo faatu mukk te jotoo ci bu yàlla ne da nga mos a dugg Amérique da nga fa liggéey da nga fa am nangam bu mbindeef yëpp maase woon di la xeexit da nga fa dugg ndax waxe suñ borom ay atem du dandu loolu bu ko nit ki xamee rek na jaar ci yoon <coughs> lu mu ci am xam baax Mm. waaw bu waxee lu amul nag ba amul këyit di liggéey liggéey ba dañuy xool jëmmi liggéey ba léegi moom wax na lu amul bàkkaar bu léegi war na koo tuub mm. waaye bu fekkee la muy liggéey na liggéey bu dagan la moom def mm-hmm. lam ciy jëlee dina baax doon dafa dafa sosoon ba am këyit bi waaw loolu la beneen mbir la la moo xam ne mm-hmm. ba mu koy def bàkkaar a nga fa taxaw di ko nekk moom mm-hmm, bàkkaaru fen bàkkaaru waaw wax lu amut ngir di wut dara te du soppi dara ci lam nag dafa ne man naa waxal ba noppi lu tax mu dugg de man na ko afa na dugg du tax dara mu am jëlee ko fa na mu duggee woon lay génnewaat kon jëru ko waaye nag bu fekkee liggéey ba mu fa liggéey moom ci yoon la tegu jaar na fi lislaam jaarlu ñu fay ko ca lañ ko fay dagan ci moom su loolu mbokk bi leer na kon ni nga amee kayit wi daal ci nga am bàkkaar waaye liggéey bi ngay liggéey bu fekkee liggéey bu lislaam daganal la moom loola euh, dagan na ci yow mbokk mi dafay laaj mu ne euh, dafa kabar di julli timis ba tàmbali di tari saar wi waaye xelam dem ci ne julliwul takkusaan maanaam nu muy def Euh, na ko dagg. day dagg julli day sëlmal nu mu def rek wala mu def daal luy waree ni génne ci julli gi. Mhm. waaw waaye su ko àggale woon nag. Mhm. du tey julli gi baax na moom ndax toftale diggante takkusaan ak timis waajib la. Mhm. waaye du sart nag bàyyi waajib nag bàkkaar lay waral. kon da ko war a da ko war a dagg fay takkusaan door a julli timis waaye bu ko àggale woon nag timis te baax na waaye nag day sopp baamu ko. mu des nag euh, bu ko fàttewu ba sëlmal moom kon baax na ba tey waaye daal ñu bàyyi xel ne saa bo bu doon ñaari julli yu bokk waxtu moom mm-hmm. moom da koy dagg ndax julli du baax bu doon takkusaan la fàttaliku daa fàttaliku tisbaar ginnaaw bu mu kàbbaree ngir takkusaan mm-hmm. kon moom da koy dagg bu jóban bu àggalee julli ko du baax day day julli baar julli waat takkusaan mm-hmm. bu dee bii nag timis yi dana baax moom waaye lañ ko sant mooy na ko dagg fay takkusaan door julli timis jërëjëf mbokk mi da xam naa ci wàllu asaka lay laaj waaye tontu woon nga ko sax jamono yi maanaam xaalisu euro lay wax euh, maanaam lan mooy nisaabam nisaab bu fekkee ci euro nga koy euro koy génnee ak naka la koy génne waaw barab bi mu nekk moom hmm. juróom ñett fukki grammes yi or ak juróom hmm. yoo xam ne 24 carats lay xool ñaata la jar ci oro fu mën a nekk or boobu ñaata la fay jar hmm. loolu mooy nisaab bu ko amee denc ko asaka war na muy euro muy dollar muy réal lu mën a doon dal mhm. fa nga nekk. 24 mhm. mm, carats ci ci or or bi nga xam ne 24 carats la boo ci amee juróom-ñett fukki grammes ak juróom. Mhm. lu mu tollool ci xaalis xaalis bi dëkk barab bi nga nekk loolu mooy nisaab. lii fii ci Sénégal ci misaal dara man ñetti millions yu teg dara. mën ngaa dem feneen ci réal mu doon lin mën dem dollar wala ci euro waaye fu mu mën a doon. mën a xew rek nga koy xayma. gramme yi ngay xool. ak juróom daal. bu dee 24 carats ñaata la hmm. ci xaalis bii ngay wax yow hmm. loolu mooy nisaab hmm. jërëjëf sëriñ bi mbokk mi dafay laaj mu ne ndax bu sobee taqee nit ki euh, dana dagan muy lekk aw ñam wala wala déet <laughs> lekkaale sobe dëgganul moom waaye taq la ci say tànk ngay lekk moom dara naw ci amaa sobe taq ci ay loxo maanaam boo lekkee lekk sobe lekk sobe dëgganul ndax nit wóor tabbal sobe ci biiram dégg su dee lu mu mën a dindi da ko war a dindi ndax fi ne ku lekkoon loo xam ne sobe la ku naan sàngara masalan bu ko mënee gëq da ko a gëq su ko mënte gëq tegal ko bu julee julli ga baaxul ndax ah. daa yaanu sobe mhm. moo tax kenn du ko lekk te tey ko mhm. loolu dëgganul bu dee nag daa taq ci yaramam feneen te jotewut ak loxo bi mu lekk dara moom loolu dara loolu waaw mën naa lekk waaw mu mel ne ku yore janaaba waaw koo xam ne sangoogul janaaba ku neexee mën naa ndékki mën naa kii donte nag yooyu gënut mhm. gaaw a tàggale ko sobe lañ bëgg ki bu sa li moom bu amee janaaba ci jaxasoog soxna bu noppee bu mënee sangu saa sama mënul nag teel a yeewu na teel a yeewu te sangu balaa bala ko julli garaw hmm. kon kon ci ngant rek lañ lañ ndax taxaw sobe moom dafa gënu ci ab jullit hmm. kon lu mu gën a gaaw a tàggale ko moo gën waaye nag jotugut ak lekk kaak naan kaak yooyu moom hmm. jërëjëf sëriñ bi kii dafay laaj mu ne eh, ci wàllu miraas la jëm mu ne nan la ñuy miraasee jigéen gi nga xam ne dafa faatu eh, te bàyyiwul kenn koo xam ne eh, bokk na ci aw askanam ci wàlluk baayam ak ci wàlluk yaayam waaye lu dul daal koo xam ne euh, doom joo xam ne am na ko ci te amu ko ci sariya maanaam ci buumu sëy la bàyyi. waaw ah, xam nga kooku moom kooku du jafe-jafe ci moom de. Hmm. doom jooju dooma hmm. bu ñuy wax doom ju judduwul ci yoon mooy bàyyi la amut waaye am na ndey. Hmm. kooku nit ku faatu la bàyyi doom. moom mu bàyyi woon doom ju am bàyyi ñoo yem fi doom jooju moom doom ju kenn nattablewul la. ne ndeyam a ko jur. nit bu faatoo bàyyi doom doom jooja mooy doon bàyyi mooy doon ndeyam. Mm. bu doon bay doon bàyyi nag day ak góor. Hmm? Mm-hmm. ñu ne jenn doom ñu fi bàyyi kat tëkkutoon ndeyam kooku moom du ko doon ndax doomi jàllo du doon ki ñu wax ne mooy bàyyam ndax ci charia awut bàyyi waaye am na yaay moom. kon jigéen jooju faatu bàyyi nag ku koy doon muy yaayam muy doomam. Mm. doom bi da koy doon. jërëjëf. mbokk euh, bi dafay laaj euh, maanaam yi nga xam ne xëy na am na ku laajoon lu mel noonu sax ci wàllu yi ñuy defar ci dëj yi muy lu wàllu lu aju ci wàllu nàkk euh, mu ne dafa gis ñu koy sedd ndax dafa am ab lim boo xam ne dañ ko cee war a def ngir séddale ko wala wala dañ koy def noonu ngir sarax rek. waaw xam naa day cosaan li de moom. Mhm. lekk jafe woon bu nit faatoo ñu ñi jóge ci dëkk dëkk ñi dox ñi di war ay fas ñi di mhm. ay sareet booba li gën a jàpp ni mooy defar nàkk. Mhm. ngir nit ñi mën a lekk waaye boo ko seetloo fi ni sax nekkatul aajo moo tax daanaka nag ni ñu ko joxee yitte ni jàpp ne bu nit faatu nag daa war a am loolu mat a seetloo nit ñi lekkatuñ ko ñëpp ci nit ñi xëy na nag uh, ñi bokkoon na ci seeni yare di seen doxalin daanañ fexe bu ñu def dara fexe ba boole ca xam nga nit ki di tiim aw ñaa di waxtaan ak def nangam loro yi ci tab bi mm-hmm. ñu fexe ba ne la da ngay tudd da ngay jàng suratul ixlaas wala nangam yoon ngir mu kii ko waaw xëy na yooyu la mën a jàpp mais nag lislaam moo wax ne ndax nàkk mu lislaam xaw ko hmm. suñu aada la ñun aw ñam wu ñuy defar la dëgg la nag yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba jaafar faata waxoon na ne nañ ñum dëkkal nañ togg ñam yit waa kër jaafar ndax daa am loon soxal ba te lu ñoo togg ndax demee loon cosaan ñi wër ñi faatule ñoo indi ay ñam hmm. euh, bu ko defee nag su boobaa aw ñam la ñu wax rek xëy nag na doon nangami doom ak na doon nangamu jàpp mu ne moom Euh, a ah, bu dee bu dee bu dee lu ñuy def la aada la joo xam ne moom wax dëgg xaw ma fu mu jógee hmm. jàpp mooy nag lu lislaam digle wala lu mu santaani la waaye daal ñam bu ñu togg bu jàppandi booba loolu la woon léegi nag ñam jàppandi na ñaareel ba it li ci mat a xel mooy bu fekkee ne ay nit ñoo ko jël coobare bu baax na hmm. bu fekkee ne ñi ñi faatu la ñoo jël seen alal def ci baax na li ñu bañ daal mooy ñu jël ci alal ki faatu def ko te leeraluñ ndax bu fekkee ne ki faatu bàyyi na ay gone yu majeure agut kon bàyyi na ay jirim ñooñu nag seen alal deesu ko saraxe deesu ko maye. Hmm. seen wàll waru ca bokk. Hmm. kon bu fekkee ne am na ñu mag mag ña ñoom lañ fa génne ca magasin ba ngir dafee ko nag nañ ko bind ne ñoom kat jël nañ ci alal ji nangam bu ñuy miiras dugal ko seen wàll. Hmm. bu dul loolu day doon lekk alal ji. te loolu yàlla tëkkoon na ci. te yooyu mat na moytu ci des it nag jàpp naa ne aada bu fekkee ne mbir da ko doon waral mbir moomu teggi ko. jërëtu nag wéy di ko jàpp. boobu nit ñi aaja woo lekk moo taxoon léegi lekk. ñu soxla doonatul ak jafe-jafe ci dëkk bi hmm. ñaare ñi ñi ñi ñi faatu ñu leen denc ñëpp ci dëkk bi la ñuy jóge ñi ci ëpp seeni kër la ñuy jógee bu dee suba danañ ndekki door a ñëw bu dee teen nanu kon daanaka euh, alal di ñuy sànq def ko bëriwut ñu ci ñu ci faj lañ ko doon doyee fajub xiif la woon hmm. te daa mel léegi fajatul ox xiif nag hmm. jërëjëf sëriñ bi euh, kii dafay laaj mu ne daal moom daal euh, soxna si dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa toog ci biir ay xaritam daane ko may ma sama baat mais bi mu waxee loolu euh, waa ji daan ne ko waa dégg naa li nga wax nee na soxna si daal di ne xarit yi kon dégg ngeen ko ñu ne waaw mu ne ndax loolu rek dana tax passé mi tàbbi wala déet ndax ci loolu la sukkandiku kot ba dem am jeneen borom kër ba am ci ay doom. waaw ah, loolu nag doyutu waaw borom kër bi ci boppam. Mhm. moom la ñuy laaj dégg naa ko ci lan la ci jublu. Mhm. bu ne fase laaj jublu mu doon fase ndax baatu fase moom ci masab Maalik. Mhm. bépp baat bu borom kër wax te yéene ca fase fase la. bu fekkee dégg naa ko loolu la ci jublu hmm? mhm. su boobaa day fase la kon soxna si bu demee iddaw bu iddaam jeexee mën naa sëy feneen hmm. war nañ ko leerlu mhm. xëy na nag jubluwaay bi rek moo ci bam ne waaw bam ne yéen a koy dégg ñu ne waaw ñoom xarit fa nekkoon mhm. te waa ji waxut dara mën nañ caa jàppe ne mel na ne moom ak passé la ko jàppe te mel na ne waa ji weddiwut loolu oh. waaye daal liñ am solo foofu mooy ba muy wax baat la lan la yéene woon bu yéenee fase fase la bu yéenee fase du fase wala nag balaa jigéen jaa sëy fee moom waroon naa leer nañ ñi ndax moo gën a wóor mm-hmm. jërëjëf sëriñ bi kii def ne dafay gis uh, suñ tuddee kenn ci gaa yu baax yi da gis ñoo xam ne dañ naan rahimahullah am ñoo xam ne dañ naan radiyallahu anhu mm-hmm. mu ne maanaam lan mooy lan moo gën a wér ci loolu lu gën a baax ci nga wax nga wax ko waaw xam naa ne yërmande yàlla moom ñëpp ko ajowoo mm-hmm. bis bu set yërmande yàlla muhammad mi gën ñëpp ngay wax asalaamaaleykum uh, wa rahmatullahi wa barakatu danañ ko wax lu bari mm-hmm. hmm? salaamu alayna wa ala ibadillahi salihin danañ ko ñaanal yërmande danañ ko ñaanal ngërëm ngërëmul yàlla moom ku liggéeyal yàlla lañ ko lañ koy ñaanal mm-hmm. ku liggéey yàlla bañ xam ne liggéeyal yàlla moom mën nañ koy ñaanal yàlla ngërëm gërëm ko saxaaba yi ridwanullahi alayhim suñu borom moo wax ñoom radiyallahu anhum wa radu wa radu an mm-hmm. waaye li nga xam ne moo yërmande moom ñëpp ko bokk amul kuñ mënta ñaanal yërmande yàlla ndax mooy li nga xam ne ci la yàlla tabal ñëpp ajana waxoon na soxnaayo sa ne amul kenn ki yéen koo xam ne ay jëfam mën na koo yóbbu àjjana soxnaayo sa ne ko ba ci yow mu ne ko ba ci man nii illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi xanaa yàlla muuri mu yërmande kon ci yërmande lay tabal ñëpp àjjana kon ñëpp lañ ko mën a ñaanal teewut nag ñu baax ñi nga xam ne def nañ liggéey nañ ba am ngërëmul yàlla mu am seere ci àdduna moom ñaanal leen ngërëmul yàlla ba tey lu baax la moo tax ñu ko defal saxaaba yi di ko defal nit ñu baax ñi waaye du tey nag ñoom ñëpp nag mënees na leen a ñaanal ngërëm ah, yërmande yàlla yi nag jërëjëf euh, bokk bi dafay laaj mu ne euh, xam naa boo yaxee am ndaw kundaa la mu ne dañoo dañoo dañoo bokk di liggéey fenn daal waaye dañuy cotiser suñ cotiser euh, kenn day togg maanaam loolu sax xëy na moodu yi nga xam ne moodu moodu yi nga xam ne dañoo bokk kër danañ koy def maanaa danañuy bokk di liggéey bu we bu par semaine ñu teg dépasse waaye kenn day aaye ci ñoom mu ne ndax ki aaye di togg moom ci biir togg gi mën nay ñam wala mu cay lekk te te amu ndigalul ñi nga xam ne ñoom la bokkal cotisé wala déet. waaw sëñ bi xam nga ñam ci togg la bokk de. waaw. <laughs> ñam ci togg la bokk. Mm. Mm. bu fekkee ne dese ngaa mën togg dëgg-dëgg. faaw ngay ñam xorom si tolloog. ah waaw dëgg. yi yi aaja woo xam ba xam yem na wala yemut. Mm. dañ koy ñam. yooyu moom jàpp naa ne jote wut ak togg gi. maanaam doonul ne daa bokk ñoom yëf yi ci leen. xanaa ba ñu doon ñamu nag noonu ko am ndaw ku ndaw wala ku mel noonu nga xam ne day tibb bool ne da koy ñam mhm. te su boobaa mën naa jeexital ba ñoom ñoom ko seqal duñu suur te moom dana suur subaa nag tooñ la waa mhm. léegi bokk ñëpp waaye nag ñam yi ñu xam moom nga xam xool ba xam lépp yam na wala yemut mhm. loolu moom daa ci ci la bokk ndax bu dul loolu mën naa jékki-jékki yàq ko ñu mos ko ne ko safut xorom wala ne ko xorom si ëpp na wala ne ko kaani gi nangam wala nangam loolu la ko ciy musal nag daa bokk ci liggéey bi euh, kii dafay laaj mu ne euh, bokk bi nga xam ne dafa am deux millions ngir war cee jënd terrain ba mu yàgg mu xool ne deux millions yi mu yor euh, toog na diir bu gàtt bu bu yàgg muy bëgg man ni sax ba mu yàgg un million dolli ko wàcc te jëndu ci terrain ndax balaa jënd terrain bi dafay génn asaka ba noppi su fekkee mat na at doogu jënd terrain bi wala wala wala wala nan la koy doxale waaw xam nga xaalis moom seen blaat li tax asaka war ci nit. Hmm. day am nisaab denc ko at. Hmm. su ne nii li wax noonu ñetti millions yi matul nisaab. matul nisaab waaw hmm. ma cent mille jëm trois cent su ne loolu nag bis ba mu ko matee. bis boo bu del ci déwén sa. te wàññi kuut loola. asaka war ci. bu del siwaatee du bi mu tàmbalee dajale. waaye bi mu matalee nisaab. bis boobu lay téye bis boobu bu del siwaatee ci atu jullit. te nisaab ba manqué wut. asaka door caa war mm-hmm. parce que daay nit ko tàmbalee dajale weeru muharram ba mu demee ba ca mm-hmm. gàmmu ga ba mu ba ca ba ca mm-hmm. la am ñetti million genn wàll masala na jàpp ne ci koor gi la am nisaab kon bu fa téyewaatee xaalis boobu ba koor gi dellu si déwén ci la ko asaka door war waaye doone buñ àggee ci muharram bi mu tàmbale woon dajale ndax muharram la mu dajale woon matul nisaab bi bis bi mu matee nisaab day wax ne am na nisaab nisaab boobu nag day toogaat at asaka door caa war ndax loolu du mat du mat nisaab moom kon ñu bàyyi la nga tàggoog mbokk yi ak jërëjëf sëñ Abdou xanaa di sant baax bokk yi nga xam ne ñu ngi doon yónnee seen laaj ñaan yàlla dafa ñu dégg ku topp mm-hmm. di rafetlu jataay yi ndax lu am solo la ñu ko faral di waxee ab jullit daa war a bàyyi xel diineem mm-hmm. yàlla bëggut ko koy làmbatu dee su ko jaamu ci nii laa ko yégee wala nii laa ko mane wala nii laa ko mm-hmm. gisee waaye fastaqim kama umirta loolu lañ joxoon ndigal yonent yàlla Muhammad alayhi salaatu kon nag yu mel nii dana tax dimbalante la mm-hmm. euh, loo xamul laaj ko euh, ñu jàppalante ci mm-hmm. ba li ñuy defal yàlla mën a jag ñu mën ci yaakaar ngërëmul yàlla ak njëggalam ak yërmande bu ëllëgee mm-hmm. yàlla na ko yàlla boole defal jërëjëf sëriñ bi waa lu am solo nga wax maanaam amul lenn lu nit ki di jëfandikoo ci àddina te lislaam rotalu ca lam ca atte kon jullit bi war na lu mu xamul rek lu muy def ak lu mu mën a doon rek mu fexe ba xam la ko ci diineem sant ngir mu mën cee jariñu te ci am bàkkaar kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la ñaanal suñu borom gën la defal wér ak kattan di sant it bokk yi nga xam ne ñoo ñu doon topp yëpp ci wala GMT ak support yi nga xam ne ñoo nekk ci àddina bi te di ko tesaare ak ñu koy partagé ci TikTok yeeg yëpp ñoom ñëpp it euh, ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndax yaatal xam-xam la di sant bokk yi nga xam ne it ñooy yónnee laaj yi ak di teewoo émission bi ci ñaan yeeg yëpp di sant Sëriñ Abdou Khadir Bousso mi nga xam ne mooy réaliser émission bi Sëriñ Bàcc Ba di leen dig daje incha allah ci seen beneen jataay eh, bu gàgganteku asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu waj'alhu maskana xurujin min dulam linnuuri wakfi anhu kulla man dalam